mbokk ngir daray Thiénaba TV du cloche bi ngir lépp nga mën koy am bismillahi ali min ashaytan irajim bismillahi arrahman irrahim man bu'isa rahmatan lil alamin sayidina wa habibina wa qudwatina muhammadul amin wa ala alihi man tarassama xutaahum bi ihsanin ila yawmi din bokkiñ bokk yàlla ñu ngi nuyu mbokki jullit yépp ci àdduna bi TV Euh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy xalifa général Thiénaba Baye Alxasan Seck xafidahullah wa raa ak njabootu moom Ahmadou Ndak sekk yëpp moo wàcc nuyoo boobu ci àdduna bi jaare ko ci imaam yeeg ñëpp rek euh, di am mbégte ak kontante bu baax a baax ci daje gi ñu dajawaat ak yéen ci Thiénaba TV ci seen émission bi ñu tuddee ad-duruus at-tarbawiya min shahr ramadan leçon yi nga xame ni bind yi nga xam ni danañ ko jëlee ci weeru koor yi suñu jotaay bi passé defoon waxtaanu nañ ci shahr ramadan wal ibadat weeru koor ak jaamu yàlla yi ñu jukki woon ci ci benn ci jaamu yàlla yi julli xamle woon nañ lan mooy julli xamle woon nañ it euh, moom julli ni taxawaayam dëggantaan ci relation bi nga xam ni dina ko jokkale diggante nit ki ak boroomam subhanahu wa waxoon nañ ni mooy buum gi jokkale nit ki ak boromam waaye it mooy almunajat al kubra mooy audience bi gën a mag bi nga xam ni nit ki dana ko am ak boromam juróomi yoon ci bis bi euh, ñi ci ànd ak Serigne Mohamed Seck nga xamee ni macha allah leeraloon na ko leeral yu yaatoo yaatu incha allah ba tey ci tomb boobu ci lañuy taxaw muy julli waaye tey ñu indi ci yeneen bunt ci biir julli gi kon dañuy wax shahru ramadan wa salaat weeru koor yenn leçon lañ ci mën a jëlee yoo xam ni day jóge ci julli ndax ñoom ñaar ñoo ànd bu ko defee incha allah tey ñi ngi war a waxtaan ak sëriñ bi ci xukmu salaa wa manzilatuha fi diinil islam muy ñaari point yoo xam ni benn bu ci nekk bëgg nañ cee def gën gaa néew fukki minute ak juróom incha allahu taala mooy julli ban wàccuwaay la am wala sax lan mooy àtte bi julli lan mooy àtte bi ndax gis nañ fa ba tey ñoo xam ni ñu koy sàggane Euh, la leen ca war dëggantaan defuñu ko ca ca yonent bi nee na woon mooy passeport bi lay yóbbu aljanna mhm. kon faw ñu xam dëggantaan xiima bi faw ñu xam valeur bi ñu xam it ban wàccuwaay la am mhm. ñaareel bi dinañu wax nag léegi julli googu mhm. euh, benn luy atte bi ñaareel bi incha allah lan mooy wàccuwaayam ci diine lislaam bu ko defee Cheikh Mouhamad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 yaa himmata cheikh uxduri lana fi hada almaxdari wal taatafi bi nazratin taati lana bi zafari sëriñ Maam Bokar ñu ngi lay delloo nuyoo ak siyaar di la ndokkeel ci jotaay yi yépp rek di ndokkeel mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy teewlu te ñu teewloo fii ci Thiénaba TV di ci ndokel it ñi nga xam ni ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi di ab euh, directeur ak caméraman yi ak monteur yi ak ñëpp rek ñu leen di nuyu bu baax leen siyaara di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp moo xam ñu nekk ci biir réew wala ci bitim réew di leen ñaanal suñu borom jàmmi ak jàmmi baatin euh, ginnaaw loolu comme ni nga ko waxee jataay bii weesu jéem nañoo na taxaw ci xamle lan mooy julli jéem nañoo tamit xamale lenn ci li nga xam ne mooy relation digganteem ak li ñuy tuddee al pas-pas aqida ak nit ki lan ban rôle la julli joué ci dëgëral digganteem ak suñu borom tabaraka wa taala comme ni nga ko waxee léegi li nga laaj léegi mooy xokkumu salaat lan lan mooy attee julli julli euh, farata la dafa war dafa war waxoon naa keroog ci jataay bu njëkk bi ni euh, borom xam-xame lislaam yi ñëw ginnaaw yonente bi alei salatu salaam dañoo dañoo jël attee lislaam daal koy séddale hmm. am yu ñu ci tuddee yu war am yu ñu ci tuddee yu ñu sopp am yu ñu tuddee ay sunna yu demee noonu julli nag dafa bokk ci yi nga xam ni dafa war te mooy loo xam ni boo ko defee am tiyaa boo ko bàyyee da ngay am bàkkar hmm. waaye war gi nag ñetti ceeslaay rek la am boo ñëwee ci alxuraan wane na ni julli dafa war hmm. euh, ñëpp boo ñëwee tamit ci sunna te mooy xaddis yonent bi sallallahu sa wa sallam akum jàngaleem dana dana feeñ waaye tamit ci boroom xam-xami lislaam yi ci xuruun manam euh, euh, génération yi wutee ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni julli googu farata la ci jullit bu ne hmm. amul kenn ko am droit bàyyi ko ñu génn ñu settee ci rek ñi nga xa kii ki nga xamante ni dafa am règle te mooy jigéen ji nga xam ne dafa dafa nekk ci ay bisam hmm. ak ki nga xamante ni moom mooy jigéen ji nga xam dafa wasin te deretu wasinam jeexagul ñaari ñooñu lañ ci accepté ku dul ñii rek ci àdduna bi mm-hmm. moo xam da ngaa xeebar moo xam feebaroo moo xam da ngaa da ngay xeex moo xam xarewoo mm-hmm. moo foo mën a nekk état boo mën a nekk rek julli da laa war mm-hmm. yeneen yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran ni wa maa umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diin nee na diggalee diggalee fuñ leen ñoom jullit ñi lulul daal ñu ñu ñu ñu ñu ñu jaamu yàlla sellal diine ji ngir moom jëng walisu mboolem yoon woo xamante ni yoonu juunu la hmm. waaye tegu nag ci yoon wi nga xam ne moom suñu borom tëdd hmm. te tëral jaaree ko ci yonent yi alayhim salaatu wasalaam hmm. mu tekki nag wa yuqimu salaat ñu taxawal julli kon taxawal julli kon dafa bokk ci ar al arkaan al li hada diin mu waxaat ba tey ni inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquutan jullit ñi daal Euh, suñu borom daa faratal ci ñoom koor dégal julli ba pare def wutalu ko ay waxtu kon ñaar yooyu ñaar nga ciy déggee kon julli kon farata la waaye tamit du nu la neexe koy defee da hmm. yàlla da ko wutal waxtu yoo xam ne fii lay tàmbalee fii lay yem ba mu jeex kon ñaar da ko déggee ci aaya boobee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jàngale ci ay xadis yu bëri hmm. ni ci boo xam ni euh, Muaad ibnu Jabal radiyallahu anhu moo ko nettali hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni ko yaman bi ni ko boo demee wa alimhum anna allaha aftarada alayhim xamsa salawatin fii kulli yamin wa layla mm-hmm. boo demee bokk na bokk ci li ngeen li ngeen leen di jàngal jàngal leen ne leen suñu borom farataal na ci ñoom juróomi julli ci guddeeg bëccëg mm-hmm. te mooy ñaari julli bëccëg yi te mooy uh, tisbaar ak takkusaan ak ñetti julli yi nga xam ne ci kër gi lay nekk muy muy jullig uh, timis ak gee ak jullig suba mm-hmm. kon daal ci gàttal buñ sukkandikoo ci li nga xam ni Eh, mooy aaya wala xadis dañuy gis ni liñ ciy istinbaate maanaam liñ ciy jëlee coom comme xokkum hmm. moo julli daal dafa war bu nii tamit ci siècle yu wuute yi ci la borom xam-xam yi dëppoo ci ni julli farata la joo xamante nii dafa war ñépp ba mu des ki nga xam ne dafa gis règle di jigéen wala mu gis déretu wasin sëriñ Mame Bokar barakallah jërëjëf cheikh bi jazakallahu xayran hmm. kon atte bi moom leer na ni hmm. farata la ca farata waxoon nañ keroog ni mooy loo xam ni dafa war nit ki su ko defee am tuyaaba su ko bàyyee am bàkkaar mhm. kon julli lu war la mhm. wax nga it ñi mu war mhm. képp ku di jullit euh, nekk ku majeur maanaam mu kallaf nekk koo xam ni ànd na xelam nekk koo xam ni it set na ci dereti gësin ak dereti wasin ca loolu dañ ko tax diit Euh, ndax jigéen ji jamono ji mu gise gise mbaax mhm. julli da koy wàcc mhm. waaye nag bu setee rek commencé julli moo ki am basin mhm. kon dèjà wax nga ni kon daanaka mënoo cee génn kenn euh, lu dul ñeent ñooñu nga xam ni wax nga ni ñoo ca bokkul jullit bi ah, yéefar bi ki matagul a julli mooy xale bi majeuragul ak ki nga xam ni àndut ak xelam ak jigéen ji nga xam ni setagul kon ca it ab diir boo xam ni diir bu ñu limité la euh, wax nga it bu baax a baax ni dëgëral ko ay aayaat ak ay ahadis yoo xamee ni yii kàddu yàlla li njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon julli buñ nee julli ak weeru koor di nga gis ni kon julli moom lu war la kon loolay àtte bi ñaareel bi léegi ban wàccuwaay la julli am ci lislaam maanaam bu ñu doon jox benn place mhm. ban place la occupé moom Euh, nga jéggal ma tuuti rek ci euh, ci tomb bi ñu bi ñu bi ñu jóge léegi mhm. ndax dama cee gis ay sew-sew yoo xam ni mhm. jàpp naa ne occasion yi du bëri ngir ñu wax ci da nga wax ni léegi ni mhm. euh, warul ki jigéen di gis règle waaye dafa am ay sart yoo xamante ni mooy ci lay tàmbalee ci lay yem xam naa ne duma jox les règle bi gën a yaatu mais damay jox li nga xam ne rek ay sew-sew la yu jigéen ñi dul bàyyi xel te mën naa tax ñuy faat ay boru jul te duñ ko xam Euh, li tax euh, li tax mooy. Mhm. nit ki jullit bu ne war naa xam waxtu julli bu ne. Mhm. fan la tàmbale ak fan la yem. Mhm. ak it waxtu julli bu ne. lan mooy la nga xam ni moom la ñuy tuddee al daruriya ak lan la ñuy tuddee al muxtaar ndax loolu mooy permettre nga xam. julli gi nga faat ak julli gi nga faatul. ba ak ji nga war a fay ak ji nga warut a fay. masalan bu fekkee da ngaa jël julli tisbaar mi ngi tàmbalee ci jamono yi bu jant bi nekkee ci digg asamaan si ba commencé jëm sow. ba kër yi commencé génne penku. fa la julli tàmb tàmbalee yem ci bu ker yi muxtaar mi mhm. yem ci bu ker yi tolloog seen borom mhm. mën naa ko résumé sax daal ni mhm. waxtu tisbaar ak tàkkusaan ñoo yem ndax ñoom ñoo dem ba timis waxtu timis ak gée ñoo dem ba mën ngaa wax ni ba fajar waxtu fajar bu jant fenkee ci ñaari waxtu yëpp jeex na léegi boo ko xamee noonu dana tax jigéen ji nga xam ne dafa gis règle euh, masalan ma jox la exemple bu ndaw jigéen ñi ñii joo xam dafa gis règle bi mu gisee règle réglam di dem di dem di dem ba ci masalan alxames mhm. alxames boobu nag bi tisbaar ji doon jot mhm. nemmeeku na boppam mhm. waaye gis na ni ba léegi setagul setagul mu dem rek nekk ci activité am ba timis jot mu nemmeeku boppam gis ni gis ni set na léegi nag te xamul ni diggante timis ak tisbaar diggante boobu bu ci setee mhm. julli tisbaar da koy war mhm. julli tàkkusaan da koy war mhm. masalan jamonoy tàkkusaan dafa jot mu nemmeeku boppam gis ni set na su boobaa daa war a julli tisbaar julli tàkkusaan kon li ñu ciy dégg rek mooy boo xamee julli waxtu juróomi bu ci nekk fan la commencé fan la yem yow mii jigéen sonne si dina war a laa jaral waxtu julli bu jot wala heure bu jot nga nemmeeku sa bopp xam ba xam yow julli gi war na la wala julli gi warul la kon sew sew la boo xam ne xëy na hmm. dinañ am occasion ci gën ci approfondir hmm. euh, léegi nag hmm. doo doog bi ñëw nag ci manzatu salaat yi waaw damay nga may ma benn kii bu ndaw rek dafa am gaar bu ñu gaar démb wala barki démb euh, kenn ci macha allah ndongo yi daa wooroon ba ba 18 heures bay mi ba nga xam ne daal li ko tere ñuy defal ndogu bi daal am naa matatul 30 minutes moo gis mbaax <laughs> mu ñëw di ma laaj ndax gis bii dama koy fay woon ko ah loolu la yàlla dogal ah dëgg la <laughs> waaw moo tax xam loolu ngay wax ni mm-hmm. xam heure bi xam muxtaar ak darura da lay dimbali. Mhm. waaw ca bu ma ko doon tënk oustaz ci li nga wax jazakallahu xeran mhm. ndax am na koo xam ni xamul bu asamaan tollee ci digg euh, asamaan si jant bi tollee ci digg asamaan. Mhm. mais am ko am na koo xam ne moom heure boo koy wax da koy wax ci ay minutes. par exemple bu ma doon dégg sa wax. dinaa dégg ni tisbaar kon tàmbalee na une heure et demie. une heure dem ba quatre et demie. ba mi euh, daroora bi tàmbalee foofu quatre heures et demie ànd ak waxtaaru tàkkusaan bi dem ba six heures et demie. loolu mooy ci waxtu. aywa barakalaay léegi ñëwal bi julli julli am na wàccuwaay yu mag a mag ci lislaam bu fekkee wolof moom da koo bañ sax ba ki nga xamante ni moo nekk ci lislaam wala mu tudde ko muslim mais jullit la ko tudde loolu nag liñ ci déggee kon mooy xam na dëgg dëgg nag julli euh, wàccuwaay bi xam ne am na ko ci pas-pasub jullit waaye tamit ci lislaam bokk na ci liy feeñal wàccuwaay yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni julli mooy keno diine mm-hmm. maanaam mooy cëslaayu diine bu dekkoon diine masalan am mbaar la keno yi nga xamante ni moo ko tax di mbaar mooy ab julli kon euh, lépp loo mën a gis mm. keno bi keno bi bu daanoo rek lépp dafay daanu mm. moo tax rasulullaay wax ni alsalaatu imaadu mm. man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin mm-hmm. wax ni julli daal moom mooy keno diine mm-hmm. képp koo xamante ni taxawal nga julli taxawal nga diine waaye képp koo xam ni Euh, soofatal nga julli jàppal ni soofantal nga din diine yëpp hmm. kon kon benn nga ci ngoog hmm. ñaareel bi mooy li tax julli am solo te am pala bu rëy ci din nit dunduk jaam bi rasulullah dafa jàngale ni bu nit ki faatoo dajeeg boromam hmm. li jëf yi bëri bëri bëri bëri bëri li ñuy njëkk a gëstu ci moom mooy julli suñ gëstoo julli yi mu baax ñu doog di xool li ci des waaye buñ gëstoo julli yi baaxul ñu ne ah daanaka foofu la audit audit bi di yam dañ naan kii daal euh, admewul dafa dafa dafa perte daal di koy yóbbu safara yàlla nañ ci yàlla musal rasulullah dafa wax ni hmm. awalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyamati min amalihi salaatu fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasada fasada sairu amali hmm. mu ni bu jaam bi faatoo li ñuy njëkk a réglé ci ay jëfam hmm. mooy julli bu julli yi baaxee ñu gis ni defee nañ ko na mu ko war Euh, kooku texe na waaye nag su julli bonee rek euh, mbooleem jëfam yëpp ak lu mu rëy rëy euh, du baax mu waxaat na ci beneen xadis ni bu jullit bi faatoo xadis boobu tamim ak tamim ad daar yi moom moo ko li mu ni li ñuy njëkk rek la ci jaam bi jëfi jaam bi yowmal qiyaamati mooy ak julli hmm. bu ñu xoolee julli yi nag gis julli yi dafa manqué suñu borom eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daal malaaka yi dem leen xool yeneen tatawaan maanaam yeneen naawaafilam yi mu doon def hmm. ndax dina di ngeen ci fekk loo xam ni dina mën a mottuli furjaat yi nga xamante ni moom moo nekk ci moom maanaam manquement yi nekk ci ay julli farataam hmm. buñ demee fekk lu ko mën a mottali ñu mottali ko ca hmm. waa jaam bi taxe waaye su fekkee fekkuñu ko fa nag jaam bi amul sens suñu borom daal di koy mbugal foofu di nga ciy jànge ñaar mooy ndakate julli farata ni mu amee solo noonu la nawaafil yi di amee solo ndax nawaafil yi ñoom ñooy ñi nga xamante nii hmm. eh, bokk na ci li eh, julli place bu rëy rëy bi mu am ci lislaam hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ni lislaam mën nañu boo gisee digal yeeg tere yi hmm. mën nga koo jàppee ay buum ay buum yu ay buum yoo xam ne dañ ko takk ay orwa mu ne nag li jamonoy gën a dem par benn buum di firiñtiku ndànk-ndànk mu ne nag buum bi ci mujjee firiñtiku firiñtiku maanaam nit ki daal bu amee diine hmm. la muy mujjee ñàkk ci diineem mooy julli da ngay dañuy renvoyé ci li ñu doon wax démb hmm. wane importance su julli hmm. li fi yëg nit kaa ngi koy def rek dese na dara aywa ci pas-pasam ci pas-pasam waaye saa yu demee ba bàyyee koo def rek jàppani deseetul dara ci pas-pasam moo tax yonent bi jàngale ni l'islam daal dafa mel ni ay ay buum yu yu bëri mu ni bi ci njëkk a firinciku nag mooy al amaanatu al amaanatu mooy mooy mooy warute maanaam dénk dara wala mu wax la lu mu gëm mais loolu moom bu fekkee digalu lislaam la it bu lislaam di ñàkk ay vertu boobu lay njëkk boobu lay njëkk ñàkk hmm. ku xool jamono ni muy doxee di xam ne al amaanatu moom hmm. bu amee it bareetul bareetul hmm. kon euh, mu ne boobu muy waaye bi ñuy mujjee ñàkk mën nañoo ñàkk ba neen wóor ñàkk nañ ko ñàkk nañ ñàkk lekk riba ñàkk ñàkk ba mu hmm. waaye nee na am na boo xam ne moom boo ko ñàkkee rek deseetoo dara mooy assalaatu julli moo tax rasulullah keroog bi muy génn àdduna bi muy génn àdduna hmm. digle ñaar rek la ci li muy digle mooy asala asala na ngeen fonk julli hmm. ndax xam na ni julli moom li fekk nit ki koy def am na lu mu dese diggante ak borom waaye mu ci tekki nag wa ay malakat aymaanukum ak li nga xam ni mooy seen moomeelu ndeyjoor maanaam seeni soxna mm-hmm. wala ñi nga xamante ni ay jéebéer lañ nekk ci seen loxo mm-hmm. maanaam daal maandu ci diggante ci jigéen la lañu la la yonent yaa yaar yooyu la mujjee la mujjee digle kon loolu li mu wane rek mm-hmm. mooy kon daal julli am na pour place bu rëy rëy ah, ci ah, ci ci lislaam bokk na ci place yi nga xam ne am na ko it suñu boroom ña nga xam ni dañuy julli da leen tagg ci alxuraan tagg yu rëy Hmm? mu wax ni wadkuru wadkuru fi uh, lkitaabi ismaila innahu kaana siddiqan nabi innahu kaana wa kaana rasul nabi wa kaana yamur ahlahu bisalaati wazakaati wa kaana inda rabbihi mardiya mu ni fàttalikul uh, li aju ci ismail li bëgg a retenir foofu rek bëgguma guddal tuuti mooy moom ismaila bokk na ci ko moom moom digle julli hmm. kon loolu day wane ni julli ndekete uh, am na am na am na place bu rëy rëy ci lislaam boo xamante ni laneen lu dul moom moom amu ko waaye tamit boo xoolee ci euh, ci lislaam suñu borom tabaraka wa taala dafa dafa ŋàññi ñi nga xam ni dañ koy sàggane ñi nga xam ni dañ koy sàggane maanaam fi la foofu ci lay waxee ni fa waylun lil musallin suñu borom nee na am na ñoo xam ne dañuy julli ci àdduna mais yowmal qiyaamati ëllëg bi si penc suñu borom dana leen mbugal mm. mel ni dañ ne ko ñan ñan ñan la kuy jullee bari bu koy mbugal mu ni ñi mooy ñi nga xam ne dañoo sàggane seen i julli ibnu eh, kii eh, ibnu abbas na ko ni mooy ñi nga xamante ni duñu julli ci waxtu wa te sax bu ñuy julli duñ ci bàyyi seen xel dégg kon sàggane julli ci ci yeex koo julli mm. wala booy julli sa xel nekk ci leneen mm. loolu dana waral mbugalum yàlla tabaraka wa taala kon lii mu am solo moo tax mm. ki koy def sax te def woo ko ne ko suñu borom digalee suñu borom day teg ci yow ay daan yoo xamante ni yu kawe kawe la yàlla nañ ci yàlla musal waaw ba ba baneen baneen bi it bi muy nettali nit ñu baax ñu fi jaaroon li yàlla dox seen li yàlla leen yàlla digal lépp ñu def ko seenu njaboot ñëw daa di daa di jaar faneen fu bokkut ak fa yàlla tracé bi muy wanee melokaanu seen njaboot yooyu nga xamante ni nitu safara lañ ñu bon lañ bokk na ci yi mu tudd ni duñ ko def mooy julli hmm? fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaati suñu borom nee na fa sawfa yulqawna xayyan suñu borom nee na bi mu nettalee waskur fi kitaabi ibrahim waskur fi kitaabi mariama waskur fi kitaabi ismail wax ba mu bëri dafa nag fa xalafa min baadihim ginnaaw loolu nag aw xeet ñëw daal di leen di doon mm-hmm. waaye nag biñ leen doon donnoo ndax lañ doon def la ñuy def mm-hmm. déedéet adaaw salaat dañoo sànk julli daawuñ julli julli bu baax kon yooyu hmm. nga gis ni dafa bokk ci yi nga xam ne suñu borom xase naka aw nit parce que dañ koo dañ koo da dañ koo sàggane mu wanee tamit moom suñu borom ni li gën a jafe cib naafiq mooy julli hmm. ndax day gu mu lay tax naafiq mën na tricher lu bari man ngay saraxe mu muy muy muy génne di joxe man hmm. ngay génne asaka mu ne day joxe xëy na daa bëkkun daa baax lu ne mën na koo defandoo mën naa bëgg a dégg àllaa ji tax mu daal di dem màkk comme ñëpp man mm. na man na man na waaye mu ni julli moom bokk na ci melokaan yi nga xamee naa fekk laa yatuuna salaata illa wahum kusaala bu ñuy ñëw julli da ngay gis seenu tàyyel bu ñuy julli rokon yi du mat sujudi du mat ak tàyyel ngay gis si ñoom kon loolu li muy wane rek mooy kon ndekete julli loo am solo la ndax bu rikkee koo ci jaam bi non seulement keefar lay tudd waaye tamit wala sax bu koy def te defe nu ko def mën naa tudd sax euh, naafeq mm-hmm. bokk na ci lii wane bërëbub julli ci lislaam ba tey mm-hmm. inna salaata hiya azamu arkaani l islam wa daaimu al azam mm-hmm. baada shahadatayn ginnaaw bi nga xamante ni jaam bi wax na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bi mu ko waxee pare mboolem lu muy defati te di ko defal suñu borom wala mu koy defal boppam la ci ëpp solo mooy julli ndax suñu borom wax na ni wala boo yonente bi sala wax na ci xadisu abdulahi ibnu amar radiallahu anhu bi mu nettali mu ni hmm. yonente bi salaa sam nee na buniyal islaamu ala ala xamsin hmm. shahadati an laa wa anna muhammad rasulullah wa iqaami salaa hmm. mu ni suñu borom yonente bi salaa sam nee na lislaam bu doon ab téet la juróom ñoo kenn ñoo ko seq mu daal tudd ci biir assalaat kon loolu lépp day wone rek ni julli moom bërëb la bu rëy a rëy la la am ci lislaam hmm. waaye bokk na tey ba tey li nga xam ne mooy wane màggaayam ci diine lislaam hmm. mooy mboolem ibaadaat yi mboolem digale ak tere yi bu suñu borom di joxe ak digale dafa yónni jibril mu fekk sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf hmm. daal di ko koy jox bu fekkee zaka noonu la ñëwee bu fekkee saw sawm noonu la ñëwee bu fekkee lu mu mën a doon ci ndigal rek jibril moo jógee asamaan ñëw fekk rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf daal ni ko suñu borom nee ne nangam mu mujj nekk farata nit ñi di ko def waaye julli moom bi ko suñu borom di ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo riñaane maanaam da koo jël yóbbu ko ba ci malaawul aala jox ko julli foofe kon bu fekkoon tudd ñu ci benn bu dul bii rek te doole sëkk nga xam euh, julli place bi mu am te loolu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla defal na ko mosu ko defal benn jaam min aadama ba ci ba ci fii ñu fii ñu toll mm-hmm. te lenn rek moo doon bi gën a rëy mm-hmm. mooy julli sëriñ ci bi mu indaale moom mooy moom mooy asalaat suñu borom nag def ko juróom juróom fukki julli mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi juróom mu ni ko nag képp koo xam ne taxawal na juróom fukki juróomi julli yi mi ngi mel ni taxawal nga euh, tëti juróom fukki julli euh, kon loolu bokk na ci bokk na ci lii wane tamit màggaayu julli ci lislaam hmm. mooy suñu borom bi muy tagg way bi muy wax bi mu ne qad aflaxal muminuun hmm. bi muy indi critères yi nga xamante nii ñi texe moom la ñuy amee hmm. premier critère bi mu njëkk a tudd mooy julli dernier critère bi mu bi mu mujjee tudd mooy julli yaa ngi dégg mu wax ne qad aflaxal muminuun alladina hum fi salatihim xaashiun mu ne julli ñi daal texe nañ mu wax ni muy bi ñu tudd melakaan daan ni ñi nga xam ni ñi ñi nga xam ni dañuy toroxlu dañuy toroxlu ci seenub julli maanaam ñii julli di concentré wu di bàyyi xel suñu borom di jël àq ya di ko di ko matale julli hmm. mu ne ñoo ñii day texe nañ hmm. mu teg ci yeneen hmm. walladina hum ani llaahi mu'ridun walladina yu li zakaati faa'ilun walladina hum li furujihim haafizuun illaa ala azwaajihim aw maa malakat aymanuhum ghayra maluumiin mu mu uh, mu wax walladina li amaanaati wa ahdihim raa'uun lu mu ca teg di hum ala salaatihim yuhaafizuun boo seetloo bi aaya yi ñu tegaloo yi nga xam ne suñu borom da ciy wane melokaanu ñi texe ëllëg mm-hmm. mi ngi ko tëjee ci julli mm-hmm. waaye mi ngi ko tëjee aussi ci ci julli mm-hmm. loolu li muy wane rek mooy kon julli man ngaa wax ni mboolem jëf yu baax yi moom moo leen boot moom moo leen tungoom ba bu xasee jag ci nit ki xay na li kon mi ngi noonu loolu lépp day wane rek maggaayu màggaayu màggaayu julli moo hmm. wax moo wax la ne la léegi yonent bi sala yàlla ni wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha ok hmm. léegi nag li ma bëgg a wax wax mooy nit ki li koy dugal safara hmm. li koy dugal àjjana boo ko koy digal yenn saa yi moom mën naa sax bañ a yëg intérêt ci loolu ba tax na yow mi nga xam ne dangaa sa kiiraay dafa deñ ba nga xam lii jëriñ nit kéeg li ko dul li ko dul li koy lor dangaa war a am fayda yi ñi nga yilif te mën a def ñoom rek dindit ñoom nga taxaw nag ci ñuy def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni hmm. bu leen amee njaboot bu ñu amee sept ans nga leen digal ñuy julli bu ñu amee dix ans nag jar na nga wut yar hmm. bàcc bàcc leen di leen julli hmm. ndax boo ko bàyyee mu woyofal ko man naa mujj woyof ci moom ba mu màggee bëgg koo def mu tëgu waaye nag boo ko tàmbalee ba ay cëram ko dana ko dana ko sax di def te def gi mu koy def da koy jural mu dugal ko mu dugal ko àjjana macha allah jërëjëf Cheikh bi kon yaakaar na indil nga ñëw manzila bi mu am ndax euh, yaakaar naa barke dem rek ñi nga wax ci xam waayu mbir mooy tax nga jox ko gëddaam nit ki bu réeree benn mbir xamul dayo ba du ko mën a jox gëddaam maanaam du ko mën a la ko ca war it du ko def kon wax nga ne ñu julli buñ nee julli déjà dafa am place bu ko yàlla jox place boobu wax nga ni premièrement mooy poto bi téye diini ci kon lañ cay dégge mooy julli moom ku ko sàggane sa diine mi ngi ci suuf nekkatul sécurité ñaareel bi nee nga ni mooy buum buumug lislaam lislaam bu doon buum gooy jàppale yàlla di jàpp ginnaaw bi nga jàppee ci buum gi première jàpp gi mooy wane ni yow seede tuddi nga baati seede yi mais buum gi boo ko téye téye bu dëgër lay confirmer ni téye nga ko téye bu dëgër mooy jëf ja ndax léeg pas-pas la léegi jëf ji li ciy njëkk a mooy julli gi moo tax mu ñëw nekk deuxième position kon wax nga ni mooy buum ji foofu tam la ñu koy jàppe mooy buumug lislaam moom bu oyofee jaaree ci julli rek diina ja moom daanaka ma ngay nërmeelu wax nga it ni yàlla sax dafa tàgg jullikat yi waaw xam nga yàlla bu demee bay tàgg kum tàgg ci ndax dafa am comportement yu nekk ci yow waaye comportement comportement yi la koy confirmer mooy jëf ja kon nit ki buy julli yàlla tagg ko wane na ni kon yàlla lii mu tagg li tax waa ji mu tagg ko kooku am na wàccuwaay bu mag a mag nee nga it ponk yi gën a mag ci diine ji ginnaaw ñaari baati seede yi mooy lislaam mooy sawlaa mooy julli du loolu nga wax waaw euh, fa nga dëgërale mooy bi ko yàlla jox yonent yàlla muhammad da ko yóbbu ci juróom-ñaareelu asamaan wala yóbbu ko ba ci malawal aala wala yóbbu ko ba ci xadratu ilahiya te it euh, loolu li ko dëggal imaam mhm. Seydina Jibril alayhi salaam bi mu yóbbu yonent bi ci isra wal mi'raj mhm. isra bi mooy mu jóge ci mhm. Euh, Makka yóbbu ko baytul maqdis foofu jiit fekk na fa yonent yëpp jiite na mhm. donc kon jiite gi mu leen jiite ca loolu mus am mhm. am na lu muy confirmé mhm. ci ni lii mu lii mu leen jiite muy jullit lu rëy la ñaareel mu jógewaat ak moom foofu yóbbu ko ba ci asamaan juróom-ñaar yonent bu nekk mu jaar ci moom def fa escale yonent bu nekk mu def fa escale ba yéeg ci sidratul muntaha ba jibril ni ko wa ma minna illa lahu maqamun maalum fii nga àgg nii nit mu su njëkk a ñëw ceeg yaa fi mujjee ñëw léegi nag est ce que foofu lay yem hmm. mu doog a yéeg nag hmm. fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa hmm. awhaa ilaa abdii maa a donc bokk na ci la ko yàlla jox mooy julli juróom yi donc loolu nit ki koy sàggane wala mi koy oyofal dëggantaan xamul wàccuwaayu affaire kon wàccuwaay bu mag bi mu am bokk na ci yàlla ne yonent bi ponk diine yépp dama la ko joxee suuf digle yépp suuf waaye julli gi moom ñëwal mu yóbbu ko ba ci asamaani juróom ñaar jox ko loolu tamit na importance rëyaay bi mu am ponk yépp bi ci gën a sensible nga xam ni nit ki bu koy bàyyi di nekk bi yëfar mooy julli nee nga yonent bi nee na lu baree bëri nit ñi ne nañ ko bàyyi euh, amaanaak kóll rek yu mel noonu nañ ko bàyyi waaye julli moom mooy dernière chance bi nga xam ni nit lu mu bàyyi ci diineem ndax nit ki mën naa bàyyi joxe asak ba caag mu tuub commencé joxe asak waaye julli boo ko bàyyee rek question yi mooy dugg lu tax nga bàyyi ko mu ni gëm naa ko de waaye dama ko dul def ñu ni kon nañ ko may ñetti fan mhm. bu tuubul ñu rek ko mhm. lu tax nga bàyyi ko mu ni gëwuma ko mhm. dañu cee forcé rek waaye du force kooku ñu ni waxtu wam ko waxee la des ci waxtu julli woowu ma ko waxee dañ koy exécuté dañ koy rek kon dèjà wane na wàccuwaay bu mag a mag kon tënku ko ci juróomi mbir yoo xamee ni wane na ni julli moom am na wàccuwaay bu mag a mag kon tey yaakaar naa loolu nga ñu indil indil nga ñu àtte yi ba ñu xam ko war a góorgóorluwaat ci ci koor gi gën a nàmmaat suñu julli waaye tamit wan nga wan nga ñu wàccuwaay bi nga xam ni yàlla moo ko jox yeneen bi jox ko ñun tamit ko ci nekk nga war a joxaat julli nag euh, beneen important joxaat ko sa ittee defaat sa ittee xam ni la nga waxoon ca door door door ba sa passeport wala sa laissez-passer bi lay tax a dugg aljana mooy julli ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam waxee ci benn boo ñëwee yomal xiyam bu ñu xoolee julli gi mu baax jëf yi bu ñu xoolee julli gu baax yi ci des jërul xool hmm. waaye bu julli gi baaxul moom hmm. yeneen day yàqu hmm. kon yaakaar naa loolu euh, yaatal nga ko baax a baax léegi lan ngay tàggatoog nit ñi ci weeru koor ak julli looy tàggatoo jërëjëf comme ni nga ko mujjee wax rek weeru koor moom weeru euh, stage la maanaam occasion bu yàlla may nit ñi la ngir li ñu ni leen tëwoon ci ay jaamu yàlla ci julli ak ci sellal ak lu aju ci loolu ñu jéem cee profité ngir mën ko ci